mbokk yeeg xarit yi ñi sétan ñu ngi amaan mbikté di delsi dellusiwaat fi di leen présenté modou tabaski comme ñu ko daan defé sa su nek tay ji nak ñu ngi ñëwaat fi ci colonel Samb ñëwoon nañ fi daaw dañ fi ñëwaat den tay ñu ngi ko fekk tay ci locaux mi bees ñu fas yéene ko dalal colonel ma ngi lay nuyu. wa waa assalamu alaykum client wa kër Cheikhul Khadim madlabul fawzaini Couture Absa ma ngi delloo nuyu bu baaxa a baax. tay ñu nga amaan tay ñoo di la dalal fi ñu ngi la fekk tay ci sa loko yu bees yi xam nga ñu ñew tay ànd ak yow pour def ak yow modou tabaski tay lan nga ñu yende waaw contane contane rek parce que olof dafa am lu am solo lu mbaax neena ñaan bo nango sonal borom ah, sant naa liñ baax baaxa baax a baax sant waa Thiès rawatina nag sama ñam parce que li olof feccum lire bu neexee yey ndey ja japp ci mbagge kon tay ji bu taxawee yalla ñom ñoo tax tey naka ngeen di wajale tabaski lan mo gëna tendance tey jii nii. waaw tabaski ak mo ak tendance dañu and te Sénégal dañu tam sance xam ko mën ko kenn ku nekk yaa ngi wut wut foo jaar loo xam ne natt nga ko sa bopp ni tey dina rafet rek xale yu jigéen ñi ngi ci jaar xale yu góor ñi ngi ci jaar bëpp xéetu tisi bu dul tisi jinne rek wàcc na fii kon Sénégal moom sañse macha allah lu rafet la ñuy jënd te ñun ñi ñëwit fas nañ di leen ñawal lu rafet tey jii nii na colonel ndax client yaa ngi ñëw bu baax par rapport ak bi nga defee daaw moo du tabaski ak léegi nii waaw sant yàlla rek ñi ngi ñëw bu baax a baax a baax tey jii biñ teel nañoo baaree yàgg na képp ku sañoon sax da nga naan colonel moo ma ñawal moo ma ñawal mais jàmm pexem yàlla ak dogalam mënoo topp ñëpp di leen satisfaire seen besoin mais maximum ñi nga xamante ni nii yàlla boole nañu ñoom tamit ñu am mbégte ak bànneex pour bëgg fi ñëwal leen ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax 24 heures sur 24 bañ tàllee fanaan léegi ça fait un mois kon ñun li ñu bëgg lépp ñu ngi koy jéem. léegi nii gis nañu ah, ñu bari dañ daan dem dakaar di fa ñawloo ji di leen romb cees mais gis nañ que ni yéen tey jii waa Dakar yóbbulatul leen dara léegi lan ngay ñaaxee nit yi nga xam ne dañuy jóge fii Thiès di dem dakaar di fa ñawloo waaw boobu dañoo réer rek parce que xam naa ne lu baax moom liñ naan ku ni jàkk ku ni jàkk nga ni jàkk kon yaakaar naa lu baax fu ko waay seen rek xam nga ko la ne Dakar moo ne fii moo ne feneen ak feneen te yàlla dañoo dimbali léegi téer yëpp mën a ñëw ñëpp mën a ñëw macha allah ñi ku ci gën a ndaw it yaa ngi a xool parce que sañse moom bon dafa yomb léegi parce que kenn ku ne tissu yi dañoo garniture seen i bopp ñaw yi dañoo garniture seen bopp tissu yi tamit rafet da ngay kub rek kub bu sell rek macha allah la ne moo ne Thiès moo nekk feneen ak feneen. léegi yéen jafe-jafe ngeen di gën a jànkonteel ci ñaw yi nii. waaw dara bañ ak làmmiñ ñuul di ko léeg-léeg nga dajee client bu xaw a naqari dere sax mais loolu tamit sant yàlla la parce que boo dul am client bu lay corriger rek yaakaar naa tamit doo mën nit bu ñu lay corriger da ngay mën jafe-jafe yaakaar naa ne amuñu jafe-jafe courant bi la woon te léegi courant alhamdulilah amuñu benn jafe-jafe-jafe ñi ngi liggéey ñi ngi wàcc ñi ngi naxtaan macha allah léegi daal léegi nii ban message yow ngay lancé boo xam ne bëgg nga tey ji autorité yi ñu dimbalee ko tey sant yàlla rek bu baax parce que mm, autorité yi bu fekkoon dama am lu ñuy jàppale daal moo ñu teg ndaw ñi jeunes yi wutal leen liggéey jéem a gëstu jeunes yi dugg ci entreprise yi xool leen jàppale leen financé leen ñu liggéey parce que téye dafa xaw a doy waar la plupart ñëpp mën a ñëw mais moyen ci boppam ñuy mooy problème mu jeunes yi mm-hmm. am na ñoo xam ne bëgg nañ waaye mënuñu seen loxo jotu seen ginnaaw ñi def lu baax nag ñi ngi def lu baax am na ñuy def lu mais bu ma sañoon daal ñu gën leen a jàppale jeunes yi nga xam ne ñu dugg ci marché yi ci entreprise yi ci centre commercial yi xool jeunes yi nga xam ne nangu nañu liggéey te seeni doole matiwu ko ñu tuuse leen ay machine ba nga xam ni benn jafe-jafe dootul amati. léegi ban message ngay lancé nii colonel. waaw xanaa góorgóorluwaat rek gën a sant yàlla bu baax a baax rawatina waa cees parce que cees man moom la am lépp lu ma am Thiès lu ma mën Thiès la. Eh, di sant yalla tamit bu baakha baax di leen ñaanal yalla parce que nak nit boy def faaw nga gëreum ku du sant doomu adama do sant yalla sant na sama clientèle yépp yépp rawti na na personnellement bi nga xamni ñoo nekk ci atelier bi di liggéey 24 heures sur 24 bu ma ni leen xëy ñu xey bu ma ni leen parce que mën na ni sax ma ci gëna ndaw mais yalla jubóole na ma ak ñoom ma leen di ñaanal tamit suñu borom jappale leen defal leen ni tawféex ak taysir ba ñu yor seen atelier bop ni man à part lool ma ngi gëreum ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp wacce sama xol sedd guuy guuy damay dégg ni souvent que ni tailleur yi dañuy tàddal ñaw nit yi dañuy jël loo xam ne mënuñu ko jël yow baal bokkoo ci tailleur yow. ñaanu ma yàlla loolu parce que àgguguma foofu parce que olof njaay dañuy def loo mën wax loo mën boo tëddee nalaw macha allah ñi ngi liggéey nag moom nalawatuñu defuñu dara 24 heures sur 24 ñi moom lu ñu mën daal ñu ngi koy def te ci suñuy rendez-vous la ñu xool ci suñuy kaye tamit ci lañu mën a sukkandiku pour bañ a tardeel kenn wala pour bañ a pénaliser kenn lan moy kaddu bu mujj bi waaw santaat yàlla rek comme ni ma tàmbali won rek fa man sama yaakaari tay si Ahmadou Bamba khadim Rasul la kàddu bu mujj fa laay njëkkee fa laay njëkkee bu may tëddëg bu may yew yep mom la wa santa yalla julli ci yenent bi sangu sangi sayidina muhammad di santati nak sama wasila si Ahmadou Bamba khadim Rasul fi ku fi ñu xamna ni keur Serigne Touba la li lepp nak Serigne Touba la lepp sante Serigne Touba santaat Serigne Touba santaat Serigne Touba Serigne Saliou mbake ni di ñaan yalla suñu borom def ci jamm ak tawfiq ak riddan wa rahmatan wa barakatan wa afia maa ngi tudd Pape Jabel Mbaye tey dañ la ñoo fekk fii da nga doon jël sa ñaw wala waaw moom yàlla danoo boole woon bu yàgg nag mu doon nit ku baax doon nit ku yàlla baaxal moom yàlla dafa dogal mu doon nit ku baax loo xamante bu yàgg bu bayam don ma jaan bayam doon jàmbari ci bi bayam doon liggéeykatu yàlla ca masalikul jinan feccum lire bu neexee nday ja japp ci pag ya waye liggéey ñaanu waajur bu sottee faamu faamu faamu la jël borom sàmb ñaan we ñaan gi moo ñëw yàlla na yàlla guddal sa fan te wéral sa cër lii yen wi la rek teen bi ñëwgul ndax baax gi féete ci yow yëpp ànd ak yow da ngaa judd ci ngor màgg ci ngor xam ngor di ànd ak ngor foo jëm ngor ngay ngor ngay jiit leen doo téer bi tànnal ñaw jàmbur doo téer bi ñawal nit ki muy wàcc doo téer boo xamante ni faa bu lu jumee ni accam client bu ñëw fi xam ne respecté client bu ñëw fi xam nga joxu ko cëram client bu ñëw fi xam ne joxu ko gëddam loolu la yàlla dogal ci yow suñ tubaa xaadim rasul mi nga yaakaar balla ak maaram ay sak sadio maam jaara bu sumi ci poroxaan koo yaakaar daraam du takk sa baay moom la doyloo woon fii daan ko tàndal fii ci ginnaaw Touba Thiès daan fa fanaanee sant suñ tubaa ba bët set dan berde di jox doom adamay ñuy lek ka kon bo jëlee sa tarafatal ay sa bay da ngay dem motax jom ji nga lamboo cees gep li ci gërem à travers le monde sax lay wax ñu la ci gërem di la sant yalla na la yalla musal ci ciat yalla nga mucc ni mbaam mucc ci tabax yalla nga mucc ni asaman mucc ci mahwa yalla nga mucc ni siñeer mucc ci rek jënd ko rek da ko rek sa loxo bënn borom ngor nga borom jom nga borom dignité nga bis bii ñu ko téw ay déwéni déwén suñu borom may ñu fekke waye do ragal do tit ki nga yaakaar serigne Saliou Mbacke doomi soxna Fat Jaxati jàmbaari lislaam ji ki nga xamante ni doomaat gone gu fi xam dara tey sëriñ Saali woo nee naa jaam ba ba mbaaxee ba baax ba dajaloo kër sëñ Tuubaa bi sëñ Saali ñooy daale raaraat yoon yoonu murit tatagal ko jël leen jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la suñ tubaa daan def ca mag ña doonte yooyu ma ko mbarkeeloo ca ñooñu nga bokkoon lépp fekk lu fi yàlla yàlla guddal sa fan te wér sa cër yàlla la yàlla musal ci cat yàlla la yàlla musal ci làmmiñu doomu aadama njaay soxna si kii lu mu def def la ba yow sa ñëw pare na ma ñawalee du tey lu baax rek la may ñëwal fu mu toll dara jëy sëriñ tubaa li may li muy sol li muy sol la may solal teel ma boppam bëggal ma boppam nag may ñaan ci dara jëy sëriñ tubaa yàlla nga yokk ni jumaay tubaa yalla nga yok ni mam cheikh anta mbacke borom deureum ngeureum yalla nga yok wetuli ko sa bay ba jambar l'islam gi nga xamanteni mo tok fe masalikul jinan wetuli ko serigne touba jumaay masalik bo duggé ni alhaji modou may samb lo fu mu tiné den won ni la ni liggéey serigne touba bép mu ne ca diko liggéey liggéey bu rafet tiyel ko tiyon bu rafet kon bu doma melé ni wacc na yalla yalla guddal sa fan samb soxna si na nga def ma ngi tay ma nga la fekk fi ci colonel samb da nga doon indi sa ñaw wala da koy jël sama indi sama ñaw gees la yow ba yexo indi ñaw yi ki yex na indi way daf ma baye place moom ay ñawal. ah te yéen dañuy dégg naa dañuy engagé. lu ñu moom parce que yëpp moo ma koy ñawal yëpp moo may ñawal. kub uh-huh. rek lay def macha allah yal na la yàlla lafal cat koy ne sàmm bu la kubalee nga kontaan maa la wax lii. ba moom bokkul ci tailleur yi tardé na. non non man duma tardé musuma tardé. ba ñaax sama kër laay toog sax mu gàddu muus indil ma. loolu am na. léegi dañoo doon dañoo doon gis ñu bëri dañ doon jógee Dakar dañ doon jógee Thiès di dem Dakar di fa ñëwloo yaakaar ne téere yi Dakar yi ñoo gën a kii Thiès léegi yow ban message ngay lancé. bi may lancé mooy bu kenn daggati paas di dem Dakar nañ ñëw àng sëñ Fall koy ne sàmm barke Rasulaay ku mu kubal nga kontaan parce que sëñ Fall laa wax neexaluma ko ndax damay fay day day ñëw lu rafet di kub lu rafet. maa la wax lii ñaw rek lay def day ñaw ñaw yu rafet yu bu baax garam bu bu la bu la garam bu ba jamanteel la rek nga jël pee maa la wax lii bu la kubalee tey baas robb nag day jël sa taay macha allah man fu ma fu ma ñawalee su ma génn ma la ñawal mariage tamit macha allah ma yàlla na fal dama gis lu mu def man mi ngi am na xale bu jigéen bu doon xew suñ koñ da koo ñawal a ñawal a ñawal ba jëlaat ñaw jesnes ñawal ko mu xale ba dugg simmeeku def lu ne barke ti bi waaw lii moom moo ko def. mbokk yeeg xarit yi ñu doon seetaan tey ñu ngi woon fii ci colonel Samb mu ngi nekk ci côté angle Serigne Fallou moom la ñu àndaatoon woon ci mode tabaski bi ñu ngi leen di jox rendez-vous ci yeneen émission ak yeneen i téyeer yu nekk fii ci cees